premièrement Balla Gaye amul kilifa ndax lan amul kilifa ñaaxarañ lu mu mënul Balla Gaye lu mu yokkal lan la ko mën a apporter ci làmb Ahmed Aïdara lan la mën a yokkal Balla Gaye ci làmb lan la ko mën a apporter Aziz Ndiaye xaw ma Alain Ndiaye ñooñu ñooñu seen groupe Ndiaye Ndiaye yooyu leen rek lañ mën a yokkal Balla Gaye mën nañu wut ay gàllaaj mën nañu wut ay mystique waaye mënuñu ko yokkoo leen ci làmb te ñu ànd ak fii Balla Gaye à part Baboy moo ci mën a taxaw ne la Balla Gaye làmb ji compliqué ñii ngay def ak ñii ak ñii nii. mais gis nañ ba si Aziz Ndiaye sañ-sañ lay wane ndax borom xaalis la waaye du xam-xam Aziz Ndiaye lan la Aziz Ndiaye daa xam droit bu jub xamul correction xamul bët xamul nooju xamul galgal xamul xàjtar bi kon kon lan la ko mën a koo apporter foofu lu surtout sur le plan mystique ak ak million loolu rek la mën a apporter Balla technique. physique musculation contact coffre endurance Aziz Ndiaye xamul loolu te nit nag bu fekkee ne tanewu la li olof naan garab la sutu du la may bu dee ci côté sport Aziz Ndiaye mënul mënul may ker Balla Gaye waaw bu dee côté million nag ak côté musique mën na ko apporter dara parce que fu yàlla mënta àgg xaalis mën na fa àgg loolu rek la ko Aziz Ndiaye mënal Balla Gaye nag il faut mu bu boppam te dafa am doomu aadama yoo xam bës la ñuy wut kon tey ñaaxarañ loo bës bës lay wut ñaa la mën a lentil Balla Gaye lan la ko mën a wutal loolu bës ñaa. dañoo buusee la buuse la mi la yor day rek kooku farul fenn moo guy gi la woon. waaw loolu lan woon fantasiro que nit bu fekkee da ngaa bëgg a jël tànk bi teg ko Ndakaaru jël tànk bee teg ko Grand Yoff ba ngay doon nit da ngay nekk benn nit ñu xam ne ñu xam laa kii guy gi. seetaan naa ko mbapat maa ko njëkk yóbbu gabaar mbapat ñu fay ko trente mille gabaar daan ko deux fois Liberté 6 xam naa guy gi nit ku gëm boppam la waaye nit bu fekkee da ngaa bëgg a suba droite ah gars yi ni lay daw man ay buuse yi gëmuma leen buzz la ñuy wut nitu buzz la ñoom nitu rajo rajo télé la ñu. ñoom daal dañuy wax ci rajo yi nii di coow li leen topp nii déedéet du noonu nit da ngay waaye da ngay dañ lay dañ lay xam ak kenn. yow mu yàgg moom ba yow mal boo ko bàyyee nga toog jàpp sa njàmbur. Guédiawaye bu ñu bëggee champion il faut ñu wax dëgg Aziz Ndiaye mënul apporter Balla Gaye ci làmb lu xaalis ak mystique Aziz Ndiaye lan la mën ci làmb loolu sama million yor wuti sëriñ Balla Gaye combat ñaari minutes bu bëgg am ndam ba pare liggéeyul liggéeyul daan du daan lu daan man gis naa mbër sumeeku physiquement ma xool li commencé mu lay ba trapèze bi du abdomino du pectoro du bara du triceps du dos du abdomino du dara daa ñëw rek mel ni benn mbuusu ndox kon millions yi si yóbbu ko France fee nee xaw ma nu mu tudd nu dëkk ba tudd. INSEP xaw ma INSEP ay jaaxaan la. géej géej weeg yi amul lu mën ak di din dinu tuwaan pël yaram bu amee salte dañ ko dañ koy raxas. te man gëm naa ne Balla Gaye mii làmbam dootul neex de.